ak euh, mbiru li nga xam nekk moo di Moustapha euh, Ba ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko nag moom itam réagir na si deewuk ki nga xam nekk moo di Mamadou Moustapha Ba mu nekkoon ministre di finances jamono ki nga xam nekk moo di Macky Sall ki na xam nekk moo di Ousmane Sonko nag mu koy daal di jàll bu baax baax li nga xam nekk moo si taxawaay wam sol bi na xam ni itam amaloon noo ko si askan wi surtout si li nga xam nekk moo di wàllu finance koppar gi fii Sénégal exactement.

bariwul won ci activité politique yo xamante ni daan nañ ko fa seen. Hmm. un homme vraiment pertinent et un homme également bu nga xamante il s'est donné euh, par rapport ak liguey ba nga xamante ni lañ ko dénkoon mu jëm ci walum finance te jàpp ni ministère des finances poste stratégique la bo xamante du n'importe qui lañ koy dénk donc bo xolé pour la plupart ñafa jaar ñëpp c'est des gens yu nga xamante sur le plan. Euh, intellectuel envergure bobu yalla suñ borom denkon nañ dénkoon nañ quel que soit les résultats yi va maintenir après après euh, gisoon nañ ko fa de toute façon ñu koy jaale bu baax diko ñaanal mom tam yalla xare ko ci aljana yu gëna mag yu gëna kay Ousmane Sonko il na mm. dafa def son devoir mm. en tant que premier ministre donc aujourd'hui au-delà de mon casquette politique bi mu yor Ousmane Sonko est aujourd'hui une institution de mm. la République kon jàpp naa ni ki génn àdduna aussi c'est pas un petit homme mm. c'est pas un petit homme dans mm. dans dans dans les affaires mm. dans les affaires publiques kon jàpp naa ni lu jaar la aussi le président de la république def un un tweet di ko def un tweet également di ko jaale Amadou Ba aussi gisna naa bi mbir mi amee dafa dakkal lépp loo euh, campagne am la woon dafa dakkal kon nga jàpp ni encore une fois dafa féete kaw lépp gis nga dee bu amee ci ci ci yu bari, bari ñun ñëpp dañ koy constater bari na loo xamante ni bu amee ci suñu biir famille mu jël ñel wàllum dee da ngay gis activité yu ñu bare bari dafay taxaw sur le champ ku liggéey woon di nga wàcc ça veut dire tout simplement que dee moo féete kaw lem dee mbir la moo xamante ni dafa dafa sérieux quand même mm. kon nag jàpp naa ni li ñu wax rek mooy euh, nday gimbil gi mu di Ousmane Sonko et di président Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp envoyé nañ ko seen ay condoléances te mm. ñàkkul ni daañ fa dem jaale ko gëm naa loolu euh, xëy na peut-être juste après les élections loolu dinañ ko def mais daal àddunaa ngi noonu demal maa demal ngi ñëw la rek potu ndaal la ku nekk di nga si di si di si jot. alors tey ñu gis ni tey enquête mu daal di ñëw itam si wàllu wu mel ak aussi euh, si benn ko facette enquête euh, mu ne euh, jamono ji suñuy xool ay proche yu Moustapha Ba dañoo bëgg a tijji peut-être benn enquête dañuy exiger dañuy réclamer benn enquête sur les circonstances justement euh, de sa mort exactement euh, naka nako ko daal di jàngatee si euh, li nga xam que modi les proches de Moustapha Ba li nga xam ni bëgg nañ ko daal di biiral wa mais lolu xam nga lolu loolu moom jarul jarul sax di wax parce que c'est c'est dans l'ordre normal des choses fallu hmm. amna na décès décès décès normalement décès amna na décès yoo bu amé normalement dañuy ubi enquête xol parce que autopsie yi nga gis ñuy waral lay léeg nit gañu ñu ko hôpital mu gaañoo fofu du moins nit feebar ñu ko hôpital hmm. mu gaañee foofu ñu ubbi ay enquête def autopsie et cetera tout ça ñu xam ndax mort naturelle ou pa mais man awuma si njort bu rafet njort bu ñaaw du moins awma si njort bu ñaaw hmm. waaw parce que dee moom mooy li ma la wax si loxoy suñu borom la nekk hmm. n'empêche aussi comme dañuy din dund ci benn société boo xam dafa am nu mu bindoo ak nu mu organiser woo jaadu na aussi nit bu deewee ñu def ay enquête xam la nako war hmm. même nit bu fébré sax genn aduna war nañ def enquête hmm. parce que fofu la aduna toll hmm. surtout ben mort subite waaw nga xamni ni dem hôpital lool yépp lool yépp ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses lool mom sax ñun nak ñoo am habitude nit mën na dé légui ñu xey yanu morgue ba dem ki souli mais fallu fi dans l'histoire war nañ wax nañ ñu am na ñoo xamanteni ni seen bàmmeel lañ déké am na ñoo xamante dañ leen yóbbu ba ba ba morgue ba ndekete deewuñu won ñu sakkat wala ñu def ay affaire du luñu fekkee nak mais luñu netali la tu as moo tax nit bu dee parce que nit dee yombul est-ce xam nga ni dee yombul dee yombul de hmm. man am na ay études yu ma doon def maa ngi ko doon def ak euh, ay bouddhiste hmm. bouddhiste yoo xamante ni euh, ñoom chaque année dañuy ñëw Sénégal euh, dañuy ñëw Sénégal mais dañ fi dañ dañuy def ay ay ay ay kii nag ay kii yu restreint la dañuy sélectionné ay nit sax yuy fekkee études yooyu mais comme man xam nga dama dama dama sob ci wàllum gëstoo yooyu man amoon naa ay réseau yoo xam dañu ma fekkee loolu mu nekkoon un groupe boo xam dañuy jàngale si dee circonstances yi dee ni mu du du lu yomb daal nit ñi jigi-jigi rek dee du lu yomb quoi mm. léegi nak jàpp naa ni euh, loolu moom lu jaadu la ubbi enquête euh, xol lan moy lan moy waaw ñu jëm ko déterminer lolu mom scientifiquement je pense que du mbir mo xam c'est extraordinaire quand même alors mi ngi non exactement li nga xam nekk modi ay euh, njabootam ak ñi nga xam ne itam ñoko daal di jege yu ki nga xam nekk moo Moustapha Ba nak ñoom itam lolu li ñuy daal di sàkku ben autopsie suivi d'une enquête pour daal di war déterminer exactement les circonstances yi nga xam ne itam mom la l'ex ministre des finances daal di génne adina exactement bokki ma leen lii euh, yëf yi nag mi ngi am naka dem ginnaaw bu mu doon dem foofu si ànd ak ba bu jënd li nga xam ne moo di ay garab.